Euh, tey euh, ñu ngi fi dalal ñu ñaan Khady Pouye euh, di xurdab mm-hmm. boo xamante ni tey moom la ñu dalal ci rubrique bi nga xamante ni bi mooy rubrique xurdab nga xamante ni ñu ngi ci dalal Khady Pouye Khady Pouye ñu ngi lay nuyu waaw salaamaaleykum maa leen di nuyu waa Walfadjri di kontaan si toog ak yéen plateau nga xam ne dañ nekkoon di ko seetaan mu yàgg ay ati at tey bu ñu temee ba toog bokk ak yéen plateau loolu lu ñu neex lay doon avancement la su ñun macha jërëjëf di nuyu Sénégal yëpp nag di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi ak jàngu bi ak suñuy waajur ak borom réew mi di euh, président Macky Sall ñu koy siyaar bu baax di nuyoo ñëpp di nuyu borom kër gi aussi di Seex Ñas di nuyu euh, ne Sidi Lamine suñu maam di ko ñaanal fi mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jóge yàlla na yàlla barkeem yàlla na topp ñëpp ndax nit ku baax la woon jërëjëf jërëjëf xarit Pouy eh, nga xamante ni mi ngi yëngu ci wàllu way eh, nekk mm, koo xam ni ci way lay yëngu waaye ñu dem déglu ji li nga xam ni moom la way parce que dara leeraguñu ci ñu mel li nga xam ni moom nga way amuñu ci benn certitude que ni neex na wala naqari na du dëgg waaye nag fii xadi eh, boo fi ñëwee buñ ne la bàyyil fi ngay jaaree ba musique parce que fii expert en matière de musique le vrai mélomane nga toogal tey mhm. ñi nga xam man maa yore ñi nga xam ne ñoo war a continuer ak ñi nga xam ne dañoo war a kii am na ñoo xam nag boo leen déggee ñuy way xam naa di nga ne lu tax ñii fu ñu def ba jaar fi mais jaaruñu fi dafa am ay dafa am ay musiciens clandestins comme ñoom ñi nga xam ne ñooy ñoom euh, Ouzin Keita ak ñoom Pawlish ñooñu ay musiciens clandestins la jaaruñu douane fii mooy douane aywa ñu ànd ak waa Rési ànd ak El Hadj Modou Diouf ak ñoom Abdou Top ñu envoyé ñu son wu Xadi Puy ñu déglu ko ba xam aywa. La vie des handicapés, c'était très difficile. personne. boy am na fii man gis naa ku jur doomu laa jërëjëf xari euh, puy euh, defe naa ni morceau bi way nga ko ba pare waaw waaw jarut mu may dawloo sama yaram ak triste loo pour bëgg a jàll li nga xam ni moom la ñu wax douane bi douane bi loolu jàllale wu la xadi xadi déglu nañ morceau bi euh, neex na li ma ko dégloo du caagi ni li ma la wax noonu du caagi ni dama naan la neex na c'est parce que dama laa yërëm. yow daal que xam nga loolu mooy li gën a garaaw lu nit ñi di def mais. neex na c'est parce que daf maa neex bu fekkoon ne neexut dama naan la neexut yaa ngi waaw parce que du na ah? non ne waat moom moom yaa ni dafa neex parce que dafa la neex lu tax bu ñu def ko neex. non tey tey ah, tey moom xadi neex na parce que dafa neex mooy. xadi moom lii nga fi indi moom zéro faute. zéro faute zéro faute xadi man ngay déglu man ngay déglu bul déglu ñii parce que ñii seen yoon ci musique kii président daayira la sëriñu <laughs> daara xoolal xam xam sëriñu daara yaa ngi dégg man maa fi melobaat bi kii euh, musique la doon def retraite musique démb la voilà léegi xadi euh, dégg nañ morceau bi euh, nekk na morceau boo xamante ni bi am na solo mais thème bi nga xamante ni bi moom nga développé ci kii bi wane nga ni personne considéré wut ñi nga xamante ni ñooy handicapé loolu mm-hmm. nekk loo xamante ni doy waar la mm-hmm. euh, parce que loolu jaaduwut mm-hmm. nit ñi nit dañ ko war a respecté jàpp ko en tant que doomu aadama euh, lan moo la poussé ba nga way loolu dafa nekk loo xamante ni bi euh, da nga ko dund wala danga gis ñoo xam ne dund nañ ci lu metti waaw maa ngi kontaan si question bi di nuyu sama xarit Modou Fall moom tam ak sista Thiaba vraiment ñu ngi jàpp ci liggéey bi gis naa ne clip bi moom bu télé yëpp meloon ni Walfadjri mhm. ñëpp dinañ xam woykat yi dëgg yàlla way Walfadjri moom xeebuñu benn woykat mhm. ñëpp la ñuy teg parce que xam nañ musique bi ni mu mettee loolu ma leen ciy gërëm bu baax a baax di euh, wax nag si sa question euh, nekk na la nga xamante ne nii actualité la li ma way si mhm. dëkk bi parce que euh, handicapé yi ku nekk xam nañ ni ñuy dundee si société bi ñii di yelwaan du ma leen mere parce que bu ñu amoon lu leen gënal du ñu exposé seen bopp ci mbedd bi parce que mbedd bi lu nekk mu nga fa moo tax ma woy euh, ba pare euh, parents yi nga xam ne dañu am doom yàlla def ci moom handicap ñu di ko nëbb ci kër yi loolu dafa bëri ci société bi mhm. loolu laay nekk nii di dénoncer mhm. ñu arrêté loolu parce que jur doomu handicapé du gàcce moo tax ma delluwaat jëlaat exemple ci man mhm. que ne sama yaay dafa maa bëgg daf maa ah. toppatoo dafa ma jox éducation bu baax moo sama yaay moom sama papa suñu waa kër loolu moo tax tey jii ma mën a bokk ci société bi mën a ñëw si palaatoo bi aw ma benn complexe mm-hmm. noonu laa bëgg ñi am waajur yi nga xam ne yàlla daf leen may doomu handicapé mm-hmm. ñu dunde noonu d' accord léegi euh, Khady man métier bi nga xamante ni bi moom ngay def nii amoo ci ay jafe-jafe ay dis kii yoo xamante ni bi yaa ngi ko ci dund ci ñenn ñi. bien sûr am naa si ay jafe-jafe parce que hmm. du du ñàkk parce que boo xoolee bi ma dalee def musique. waaw 2000 2007 la woon. 2007 caamaas mas na ma mas na ma invité fii si rajo bi. waaw yàgg na euh, hmm. ay. euh, 2012 je pense 2007 waaw boobu gone laa xadi nga waaw mu ngi noonu xam naa boobu yaa ngi jàng dox 2007 ah, xam nga loolu yàgg na <laughs> mais yàlla dimbali ma aussi mhm. euh, ma def ci parcours bu bu doy waar mhm. dem ci euh, fu nekk ci réew mi dem naa fa wane sama musique euh, dem naa festival Bamako 2015 mhm. euh, président Yatma Fall yóbbu woon ma fa ma dem waaw wane sama bopp foofu international nga xam ne damay wane sama musique en dehors di Sénégal. Mhm. ak fii ci Sénégal fu nekk participe naa ci festival yu bëree bëree bëri à travers euh, musique bi may def. Mhm. mais nag jafe-jafe yi moom du ñàkk parce que des fois nga bëgg dem. Mhm. buñ ne la ñëwal invité nañ la télé wala yaa ngi xool télé bi accessibilité bi. Ah, waaw ku ne xam ne ne yombul. waaw yombul waaw metti na trop ah, ku ne xam ne ne aussi yoon bi trajet bi yaa ngi xalaat ban oto moo lay nangoo jël. Ah, yaa ngi xalaat ban taxi ngay dugg mu yóbbuloo à temps. des fois nga arrêté oto sax day bañ. waaw yooyu yëpp ay difficulté la yoo xam ne dañ koy dund ci milieu bi mm. mais nag ku mel ni man da nga ciy teel a am koo xam ne peut-être da lay dimbali ci yoon yi euh, nga am benn taxi man boo nga peut-être dina la xam mm. saa boo ko soxlaa rek mu déplacé la ba tey ji yàlla dimbali ma ma am moto boo nga xamante ne nii daf may déplacé fu ma bëgg a dem ah. léegi la ma Modou wax émission bi xaw ma sa émission lan la daf ma wax rek ma tëb rek jël sama moto dem bu fekkoon aw ma loolu kon xëy na doon na gën a metti doon na gën a metti trop mm. trop mais musique bi moom. Mhm. ku ne la méttiwul métti na si ñiy yor ay tànk di dem. kon nag ñu suñu ñi la gën a ay prestation parce que léeg-léeg nga mhm. gis ñu wax journée bu ñu jagleel kii yee handicapé yeeg mhm. ak tamit yeneen yi nga xamante ni bi est-ce que ñi ngi leen di ñi ngi lay solicité ci yu bari yoo xamante ni bi war nga mën a dem def fa ay prestation non man nag prestation yi may def mu ngi ëpp si euh, comme ñun handicapé yi aussi dañu bëri ay activité waaw mu ngi ëpp si si suñu wàll boobu nga xam ne morceau bi ko dégg ñu bëri morceau bu yàgg la woon. waaw demande générale la woon moo tax mu ñu def ko enregistré. Mm-hmm. bu ñu ko enregistré. Mm-hmm. Euh, yàlla def aussi clip bi ñëpp di ko demandé. Mm-hmm. ministre de la culture dimbaliwaat ñu xujja nga xam ne moo nekk direction des arts ma ko si gërëm bu baax a baax mu nga xam ne tout le temps mu may jàppale ba si moto bi ma yor si moom la jóge ma leen di gërëm bu baax ñu may faciliter liggéey bi d'accord si laa defee clip bi pour euh, sama mbokk handicapé yi ñoom ñëpp xam ne man maay seen ambassadrice te lépp lu mu laaj pour sama voix nit ñi euh, changer nekkin bi mhm. dinaa ko def parce que dama dama wane benn séquence ci euh, clip bi nga xool yaay ji fi muy euh, yelwaan loo doom ji xarit bi ñëw mu daaw dàq ko mais boo déggee la vie des handicapés c'est très difficile ëmb na lu bëri bëri bëri lu bëri mën nga ko ci jële mais dama si jël benn benn benn kii boobu voilà di la encourager pour sa courage. parce que le fait nga ñëw. Mhm. porter la voix des handicapés. Ah. loolu mhm. lu am solo la parce mhm. que nit yàgg na way ci handicapé mais. moom du doon handicapé. mais yow nga am courage yu parce que nit ki li muy dund moom moo ko gën a mën a. Euh, nettali. Euh, te est-ce que du Sénégal ñun ñoo am problème ak yéen parce que boo demee tey dëkk mel na Mali nga gis Salif Keita ñun le mooy seen Youssou Ndour ñoom. te pourtant handicapé la. nga gis euh, Amadou Myriam ay malien lan bu mhm. malien lan mhm. nga dem États-Unis et fii à mhm. part Pape Niang bu ma daan gis pour nga gis benn andi walla kii aale mais aale peut-être euh, des na percé mais Pape xam euh, ngay gën a bàyyi xel ci côté boobu mais pour ñu egg benn niveau bi comme ni ñu waxee et si di wax kële Salif Keita wala Amadou ak Myriam loolu day jafe loolu ci ci lan la ci société bi la wala ci fii yenn décès osé pour egg benn niveau bi parce que handicap bu dee ni mën nga ko def see cër mais bu dee waay moom baat bu neex koy def ak làmmiñ kon di la déglu rek moo ci am solo pour yow fan la blocage bi nekk fi Sénégal ba munoo leen percer comme Mali wala feneen waaw question boobu am na solo euh, ñun bu fekkente ne su ñun la dama naan lu si ñun parce que ku xool lii xam ne boo ma osewul woon duma ñëw fii peut-être sama yeneen moroom yi aussi bu ñu osé ñoom ñu ngi def ay way yu neex sama mm. moroom mën naa see cité nit ñu bëri boo xoolee Zipxa Ah, ñoom Abbas. Ah, ah, ñoom waaw. waaw ñoom Fadji day dem ba Mauritanie di fa def lu lu doy waar. bëri naa mën naa cité lu bëri ñu ngi góor góorlu ñu ngi def lu nekk. Mm. bu dee studio studio nu mu mën a mel dañuy yéeg. jaral nañu ko dem yéeg pour enregistrer ñu ngi répété ñu ngi liggéeye ñu ngi def lépp mais comme li li saa wax pour ñu oo ñu si. Euh, concert yi dafay xaw a metti ba tax na ñun suñuy programme yi bopp rek la ñuy mën a exercer woo waaw yooyu am na mais xam nga ba tey ba tey des na en plus euh, société bi société bi ñoom ñoo des comme li nga wax comme li nga wax léegi nag ñun ñooy jéem a indi suñu bopp mais bu ñu indee suñu bopp aussi dañoo soxla doole bu nga xam ne daf ñuy daf ñuy jàppale mm. bu ñu ko amul dañuy continuer rek ak suñu moyen bopp la ñuy la ñuy continuer di dundee da gis ñoo nga xam ne dañuy mm. dajale bu ñu amee dem studio enregistré sonn bu bugg dee mm-hmm. fay musicien et tout boo génnee pour ñu teg la c'est tout un problème xam nga tey lii nii tele yëpp mën nañ ko teg bu fekkoon wayu caaxaan la man j'en suis sûr que ne télé yi danañ ko teg mais message bi dafa am solo mhm. dañ ko war a teg muy jàll ci télé yëpp pour pourtant dem na ci télé yi mu war a dem yépp dem na fa mais fii dama ko fi joxee même pas une minute Mourou Fall je commencé di ko ñëpp di ma woo ñëpp di ma woo ne ma ne ma mu mu ngi jàll Walf ñëpp di ma woo xadi à part way bi dafa am mm-hmm. benn am beneen activité booy def waaw man couturière la li ma sol nii man maa ko ñaw d'accord ah da ngay ñaw di def ci sa musique bi moo gën a nekk passion waa <laughs> <laughs> jóg bàyyi ma <laughs> mais da nga da nga da ngay ñaw donc. Uh-huh. di di def ci sa musique uh-huh. yow. Uh-huh. kon musique bi amagoo ci li nga ci bëgg yàlla yàlla teg ci loxo. mais li ñu bëgg wax mooy yaa ngi ni depuis 2007. Mm-hmm. yaa ngi ci biir milieu bi. Mm-hmm. Mm-hmm. mais tey ñu gis single bi nga xamante ne def nga ko je sais pas ndax single la wala album la. ak kañ nga ko produire ak yan difficulté nga rencontré aussi bi nga koy bi nga koy teg sur place. <laughs> waaw mën naa ne la mën naa ne la 2007 laa ci dugg. mais ëpp na 2007. parce que man sama papa nangul woon ma def musique. Ah, xam nga ñun ay waaw ñun ay lébu lañ. te xam nga man sama jàng sama handicap moo yàq sama jàng. parce que dama doon jàngi. xam nga Sénégal ni mu métti. waaw d'où l'importance loi d'orientation bi kii di wax dem na ba ci kaar yi. ci bureau yi administration bi mais ba tey. am na blocage man xaw ma laal mu nga fa. accessibilité yenn waaw waaw waaw c'est ça quoi c'est ça. même fii aussi. fii wal fajri fii nii et que yéen da ngeen war a xam ne y en a <laughs> des yooyu yaa ngi waxal xati waxal. parce que am na bi moom mooy tële dëkk bi war ko mooy tële dëkk bi. malheureusement merci lépp loo leen def il faut ngeen suur ci handicapé yi. Ah parce que handicapé yi am na maçon am na waykat am na lépp. Ah. ko bloqué bàyyi ko mu wax bu <laughs> ko yeggale eggali la. man fi ma bëgg laaj mooy. Ah. Euh, defe naa yaa ngi sax brosé li ma bëggoon laaj ginnaaw bi ma jàppee ni mhm. handicap man jàpp ma ni ay ay cër la mhm. mais xel mooy handicapé gis nañu ay boroomi xam-xam ñoo ne ci seen biir euh, ci côté métier boo demee ay bale ay ràbb ay yu bëree bëri da ngay gis ñu ci def lu doy waar ba ci côté technique man am na ku ma ci nekkaloon Sopi FM di jëtaf kàmbel xaw ma ne ku mu nekkati mais lépp lu jëm ci wàllu mixé gisuma ko ko fi sut fii ci Sénégal mm-hmm. te handicapé la mm-hmm. buy liggéey si day yor ay bekkeem liggéey si mais boo ko dégloo ci rajo bi ba ñëw gis ko doon kii laay déglu muy wax kon defe naa ni kon xel du handicapé te xel mm-hmm. moom mi ngi fii léegi li ma bëggoon borosee kii wax ko mooy Euh, demb ka laa gis rek ku leen bàyyi xel ci loolu. yaa ngi fàttaliku bi ñu demee visiter kii yi ba ci toilette yi boo demee. Ah, da ah. gis ni am na lu mu préparé pour handicapé yi. Ah. mais bus yi ak tata yi ñu baal ma ñoom ñoo ca ne waaw ñi ne ci kaaf yi bus yi ñu baal ma xasuma leen mais dama jàpp ni am na ci place yoo xam ni. maanaam dafa war a nekk place su handicapé. balaa place bi sax ci porte bi euh, waaw parce que tey imagine receveur dañ ko waroon a préparé pour handicapé jàngal leen métier mi. Mm-hmm. ndax métier toog la comme ñoom dañu am part ci bi te a ñu yu bari am na ci métier yoo xam ne seen métier la war a doon. voilà waaw waaw commencé woon na ko léegi itam est que yéen ngi bàyyi xel di bind ci thème yooyu ñu xam ne mbiri kat du def clip rek wane ñu ay handicapé comme li saa wax ñu yërëm leen mais est-ce que yéen ngi xalaat ci thème yi nga xam ne itam état da leen ci bàyyi xel waaw euh, ku mel ni man moom maa ngi ciy xalaat parce que euh, damay wax rek ma ne su ma sañoon sama way mhm. mënoon naa tënku rek ci kaaw handicapé yi boo si ah. way du nuroo boroomam ndax kuy wax problème rek ñun ñoo fi ëpp ay problème te te te boo laal rek tem la am na bu ma njëkka def clip bu ma njëkk a def si handicapé yi laa ko ma njëkk def boobu mu ngi wax si lii mu ngi wax si leneen si jaan handicapé yor seen i jaan diplôme te amuñu liggéey xam nga boo dégloo woy boobu bëri na ay yu nga xamante ne aussi da koy laal des fois marginalisation waaw da koy laal des fois euh, ci benn ah. société nga dem nga ñëw ah. ñu teg ko ci tiroir yi handicapé ah. noonu lañ jongee de ah waaw yée ñu am soxla laajal ah kon yow <laughs> bii mooy sa deuxième clip. <laughs> bii mooy sama troisième clip. parce que wayoon naa si corona bi. clip xam naa moo doon waaw corona bi wayoon naa doon na daw fii lu bëri aussi. waaw wayoon naa si. boobu tamit doon na daw fii lu bëri. Ah, réseaux sociaux waaw maa ngi si TikTok bi Facebook bi Instagram yooyu yëpp man maa ngi ci. xam nga peut-être ñu bëri ñu bëri euh, xam nañu xam nañu à travers ma si réseaux sociaux yi ak yi may dem. mais pour télé yi moom. des fois accessibilité bi sax laay xalaat moo tax man du sax demander émission mais man morceau bi li ma koy dégg bari na de morceau bi moom li ma koy dégg moom vraiment bari na Modou Fall moom mi mi ngi jaaj gars yi moom fii moom ñi ngi jàpp parce que man morceau moom li ma koy dégg bari na moom te tey lañu door a gisee ndeysaan te bi xamante mat na caba euh, moo ma boole ak caba la boole caba bu la caba discrimination positive. ah war maanaam bu dara xewee. Mhm. ñu ne ah, lii de programme la ministre de la culture moo koy organiser. Mhm. Mhm. artistes yi dañuy teew. ñu ne 5 pour cent ay handicap la doon. Mhm. loolu dina leen permettre. mais war na euh, mën a nekk festival bi amoon Kaffrine gisuma fa benn handicapé. waaw xoolal loolu xam nga loolu jaadu am nañ dañ fa amoon prestation. non amuñu amul benn handicapé bi même du zip xaadu kenn koo xam ne. Ah, jox leen cachet xam nga loolu dina xam nga loolu aussi dafa metti nga nekk sa dëkk. di def li kii di def. bu jël di am kooku la ñuy jël. Mm-hmm. te pourtant dàqu la yow li ngay def. xam nga yu mel noonu mën na la sax freiner. mën na la freiner lii nag a war a taal pono <laughs> ñun bu ñu taalee pono dëkk bi boy rek dëkk bi boy parce que parce que xam nga Sénégal nag man man man euh, bési damay wax ne Sénégal par exemple def euh, kii day paradoxe quoi xam nga ñu wax ne ñi ngi tere nit ñi ñu yalwaan mhm. ba noppi nit ñi nga xam ne ñoom am nañ volonté di liggéey duñ leen jàppale loolu dafa yenu ma dafa yenu ma mais nag mais nag quoi qu'on puisse dire wax dëgg yàlla président Macky Sall def na si lu bëri bëri bëri ah, jàpp na depuis bi mu ñëwee mhm. depuis bi mu ñëwee 2014 ba léegi Mm. gis nañ suñu bopp bu baax gis nañ suñu bopp bu baax ci dëkk bi mais bari na quatre égal de euh, de chance ngay wax waaw ah, déglu ko mu leeral <laughs> leeralal ñu xam waxal ñu xool tey boo leeralee ñun ñu mën a xam léegi leeralal lu ci def président kontaan parce que dama ko daan seetaan télé di rëy naa bis nañ daje ay wajowal waaw quatre égalité de chance yi man am naa ci ah. bi muy am 2014 waaw ñun bokk nañ si ñi ko liggéey recensé handicapé yi. Mm-hmm. ba tey ji yàlla dogal mu am mm-hmm. man bokk naa si. Mm-hmm. à travers aussi association Tëngéej bi nga xam ne. maa ngi ca. ak suñu président def na ci liggéey bu am solo muy Sidi Sène. tey jii bi ñu ko amee am na ñu nga xam ne am nañ bourse. bourse familiale. te bourse familiale yi tey jii bëri nañu handicap man xam naa benn handicapé bu nga xam ne da doon da doon yelwaan. mais bourse familiale moo tax mu bàyyi yelwaan. bourse familiale. parce que daf ne ma. daf ko dajale. Euh, la dajale mu dajale ka mu dem ubbi si bitigam jënd ay savon ay affaire di jaay. di jaay léegi. billaay wallaay. Hmm. te. mën na euh, am na handicapé yu bëri yoo xam ne. Mm. lu mel noonu arrangé na leen. li ma koy ñaan rek mooy. Mm. handicapé yi nga xam ne dañu am seen carte amuñu bourse familiale. mu fexee ñu parce que man bëgguma di fayeeku xam sama benn morom handicapé du fayeeku daf may metti trop. daf may metti loolu nag may kay def plaidoyer fii. Mm. lu ñu mën ñu def ko si pour ñooñu ak faj mi aussi. am na mais ñu gën a ñu gën a fexe handicapé yëpp di faju mm-hmm. gën ñu boole ci société parce que ñu ay jàmbaar lañ de kii wax na ko séegi léegi am na lim yu mu yu mu lim ci mm-hmm. suñuy métier koo ci dem fekk man du ñëw rek laay def damay damay man am naa sama xarit comptable la ci Xadiba yaa fi Xadiba waaw Xadiba xam naa kuy kuy kuy yëngu ci mbirum handicapé yi la donc moom liggéey yëpp ba nga dajale liggéey yëpp munoo di way bokk ci ñaw gari ak lan ngay defaat encore non eh, ay jàmbaar lañu ay jàmbaar lañu nga yam ci benn métier ñun benn métier lañu yaa ngi dégg li nga bëgg a yàlla moo ñu ko may kon ñii bu ñu leen toppee dañuy bëgg a raatale métier yow ñii loolu nga bëgg a gis nga gis nga saa su ma la waxee ñaata ah. formation laa def uh-huh. à part musique bi. def naa form musique bi def naa formation musique bi duuta sekk trois ans. trois ans may jóge tëngéej di mm. ñëw duuta sekk trois ans chaque jour. six heures du matin laay jóg voilà neuf di ma fay ma yéeg bus boobu aw ma sax moto. ma yéeg bus muy métti mm. lool mais ma jàpp ne lii man maa ko bëgg xam nga tey jii su ma demee kon ba def effort ba yéeg si fii. Mm. ba def clip génn sama xaalis def ko. jàpp naa ne. kii dañ ko war a encourager dañ ko war a encourager mais su ma gisee lu mel nii télé yi duñ ko teg voilà daf may touché may gërëm ñaatam ba nag ñaatam ba aussi mu ngi koy teg sama rajo RFM mu ngi koy teg moom bu baax la ba pare moom du handicapé te mu ngi def émission handicapé mu ngi jàpp sa fulla Sa Ndiogou bàyyi li ngay def bàyyi li ñaatam ñaatam jàmbaar la da leen di jàppale lan ngay euh, tàggatoo parce que malheureusement Dame lekk na waxtu wi waaw Dame Mbodj moom ah Dame loo koy waxal <laughs> non kii moo lekk waaye waxtu bi. non dama koy wax. tàggatool looy tàggatool waaw maa ngi kontaan vraiment doyalu ma parce que da ngeen baax. lii dafa neex mu ngi mel ni dama nekk sama kër di waxtaan. vraiment yal leen yàlla yokk te aussi euh, da ngeen def lu am solo sànq dama ko dégg ñu ne euh, Modou Fall wax na ma ko émission eh, kii bi studio bi tey lañ ko inauguré naka ah kon de loolu lu neex la te dama woor mm, mm. barki Serigne Baaba kër si mi ma gëm mm. yàlla na nekk studio la walla lawa lawa ngeen gis ci seen bopp ci barke Seydina mo ak ñëpp ñi fiy liggéey ma leen koy ñaanal si barke Seydina dinaa xam ne kontaan naa trop ci émission jërëjëf Khady Pouye Khady Pouye waaw jërëjëf Khady Pouye mu nekkoon Khady Pouye macha allah euh, la voix d'or nga xam ni bu mu wayee rek ñëpp gis nañ li nga xamante ni bi moom la way way wi neex ba yegg ci lool mm-hmm. donc nag di wax gaa yi lim ci wax yëpp lu am solo la nañu gën a jàppale ñi nga xamante ni bi ñooy handicapé yi ci li nga xam ne mooy manifestation yu bari yi ñuy def mm. tey nguur gi tamit di ko def nañ leen ci ubbil ay kii yoo xamante ni dinañ fay mën a mm-hmm. wane seen talent yàlla na yàlla mottali ay ca xadi yàlla yàlla teg ci carrière bi loxo yàlla na nga am lu ci weesu sa njot ñu ngi lay encouragé bu baax a baax courage ñu ngi lay jaajëfal